amour dansant bu kër yi neex neex neex ba ngeen fàtte ni amour dansant moo fi jaar amour dansant mooy kër gi mën ci cuuraay ak ci ay parfum ay oud yu kenn mësta gis ay xeetu cuuraay yoo xam ni ay innovation fait par Nech Nech dafay créer xeetu cuuraay yu neex pour kër yi gën a neex amour dansant lépp loo bëgg ci cuuraay wala ci ay parfum boo duggee amour dansant daa ko fa fekk amour dansant ma nga Sacré-Cœur 3 vers Yankees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 ñëpp la respecté doonoon yaakaar waaye sant daal soxna si doy na. dañ ñuy nduróole sax dañ ne woon mag ay euh, frère lañu ak moom démb démb le matin bi loolu di xew mi ma romb naan ma bëggoon naa la woo sànq ma ne ko juste may gaare oto bi. mu ne ma xaar ma ñu dem ma ne ko déedéet du mu la xaar de damay dem damay dem defaree kilimu oto mu ne ma ah yow doo doo bëgg mukk ma yëg ci oto bi ma ne ko ab ah, baax na xaar ma rek yow man maa ngi ñëw su ma ñëwee jël la ñu dem ndaxte deewam la doon jël si te su ma ko yóbboon safaan mën na am waaye yàlla moo dogalee noonu muy sama nit ñu sekk lu ne verre yi mu mujjee sol maa ko jox. Lacoste bi mu bi ma sol démb moom ci boppam moo ma ko jëndal ñu sekkulu la suñu jabar yi xamante. jotoon naam am jabar ak ay doom. am na soxna am na ñaari doom jigéen. boog sama doom petit moom sama doom bi moom moo ne ma kaay Ousmane Sarr dee na dafa métti mu yaakaaru yaayam di yaayam dee na dafa métti ay nag sant yàlla. su yëgee ne da doon dimbali nit ba bakkanam des. si jeet la amee parce que kuy dem xare xamoo ndax di nga dellu te xare bu ñëpp jéggi la moom bu ñëw dugg ci waaw sant yàlla. ana soxnaam. mi ngi si biir kër gi ak ñaari doom taawu yaayam ñaari doom yu jigéen la am kenn gi amagul at sax fan yi la war a am at waaye sant yàlla daal. waaw suñu xarit la woon moom gaañ bu baax wóor na yàlla. dafa ñëw suñu ko nekk bokku amul xale amul mag ñëpp la doon nekkal te donte moom moo ñu mag fuuf mais xoolal dafa wàccee boppam chaque jour si ñun lay toog di ñu yedd lu ne bilaay mu koy def si ñun ñuy toog nii sax dara romb mu jëndal boo yëpp ndax baax waa moom fan la dëkkoon fii la famem dëkk papaam ak yaayam. waaw famem papaam ak yaayam fii la. Euh, euh, drame bi nan nga ko yëgee. ah affaire bi métti nañ trop mais yi nga xam ne ndogalu yàlla la rek lu yàlla dogal moom dañ koy nangu rek. ñu xam ne moom lu xëy na lu gën si moom la tamit di lu gën si ñun tamit. mais muy am fi mu la fekk. ah muy am man maa ngi jàdd noonu di am fu ma doon dem mais maa ngi saa de dem ñëw rek dégg saar saar saar affaire bi nag mooy loolu. Mhm. Mouhamed yow démb bi bâtiment bi di daanu Medina fala la fekk est-ce que mën nga dellu siwaat ci mbir mu nu mu demee. oui exact ñun bâtiment ba muy daanu exactement dañoo ñëw ne waa lu xew fii. ñun pour ñun ay lakk la wala ay xeex affaire yooyu noonu ba ñu doxee ñëw dugg ci kër gi gis euh, sunu grand bu baax Ousmane saak muy génn ak sunu grand yi ak loxoom ma ne waa mais lii nu mu mën a demee nii gis ay xeer loolu jaaxal ma ma ñëw rek romb te ba ma rombee ñoo taxaw gis gars yi di yuuxu yi kërëb kërëb ma perturbé xaw ma nu may def maay bëgg a daw génn mënu ma génn ma taxaw. dimbali leen te yàlla rek tax te xam ne ñun amuñu lu dul ñoom quoi te ñu la ñoom yàgg nañ da dañuy toog léegi léegi ñu xëy suba tàggee la ndax dafa garaaw daal dafa garaaw. kon yow bi ngay ñëw fekkul Ousmane génn àdduna. déedéet boobu mi ngi wax naaj mi loxoom ñu koy dugal ci oto beex yooyu noonu boobu normal moom alhamdulilah moom. xëy na dafa di jàmbaar ak góor yàlla rek tax mu yegg ba fii laay walaay taala di bokk ki yéen métit wi di bokk ki yenn naqar wi xale bu baax xale bu yaru xale bu dal xale boo xam ne kenn xamalu ko dara biir kër gi doxi na soxlaam ñu ngi koy ñaanal fa mu dem yàlla na ko gënal fii mu jóge yàlla na ko àjjan yàlla na ko àjjanay yàlla na nekk ci àjjanay firdawsi dañoo tiita tiit ba xamuñu lu ñuy wax ndax li daf ñoo bett dan na nag dem boo xam ne dem bu neex yàlla la parce que dafa doon sauver ba far lii fekk ko ci ndax fa muy fréquenté fii lii am ni muy kër musi fi musi bagi am daf fay dem fa lay fowee fa lay defee lépp fa la amee jàmm fa la amee salaam ndax dafa yóbbu jàmm yóbbu fa salaam moo tax mu am ko fa pap yaayam ak sam papa bokk benn baay mais gisuñu ci moom dara dara dara dara dara lu ñu naqadi gisuñu ko ci moom ñun kay fu mu nekk naqar la ñu am naqar la am de mais gisuñu ci moom dara dara dara lu ñu metti dem gi mu dem nag metti nañu lool mais nag yàlla moo soxla bu yàlla soxlaa dañuy bàyyi yàlla jël ndax yàlla tamit bëggul lu bon Ousmane de li ma mën a wax ci moom bëri na mais tey naqar lañu ñu amee biig ba léegi naqar la ñu amee ndaxte moom ba mu juddoo ñu ñoo ko yor max yaayam ñoo doon ànd xale ba ni ñu nekkee mag ku ci nekk am doom ma am wasin doom bu jigéen mu jël ko def ko ndayoo ko mu am doom ju góor muy Ousmane mii mu ne ma yow la ma jël usmaan ñu jël Ousmane téye mu ñuy saay bu xëyee suba di ñu nuyu amax ñépp jàmm ak salaam génn fii dem yoonam bu jël ñaari doomam dem leen nuyu seen maam baax bay bëgg a dee usmaan Medina waa Medina ñoom ñoo ñàkk de ñu ñàkk nañ de mais waa Medina ñoo ko ñàkk ndaxte sama doom bu jigéen fa lay sëy sama sët xale bu ndaw la waaye ñoom Ousmane Sarr lay àndal ba ma naan kaan yow Elie yow ngay ànd ay mag yi mu ne ñii samay moroom lañu ñoom laay àndal ñooy samay morom. génn ko àddunaam naka nga ko yëgee. man bi affaire bi affaire démb fekk na moom ma dem euh, doon defari kilimu oto bi sama oto sœur bi ñu woo ma sama benn xarit bu dëkk Fass woo ma téléphone ne ma man kër ñoom yuuda laa màggee presque parce que fa laa fooyee ba ni ma màggee bi ma demee ñu woo ma téléphone nee ma kër ñoom yuuda am na lu fa xew sa kër ga lu fa xew mel ni dal moo daan waaw ma bàyyi li may def daw ñëw si bi ma bàyyee li may def daw ñëw si ma ñëw ma laajte ñu ma mama roxee xale bu jigéen bi sama jarbaat la depuis ba muy xale maa ko yar yaayam du togg te ñëw euh, du yàq te ñëwuma xale bu jigéen bi da daan yaayam man Ahmed Diallo laa bëgg ba yàlla def li gën. tey fàttaliku ci moom. mais fàttaliku si moom mooy bi mu ànd ak sama doom yi oto fël fël ko sama taaw bu mag bi sama doom bu mag bi di ma ko nëbb ba ku ndaw fi mu ma ko wax bi ma duggee fekk ko fi ak maamam mu koy nettoyé ma ne bébé lii lan la Ousmane ne ku la ko wax moom xale bi mu ne ma ku la ko wax ma ne ko Vieux Fabre moo ma ko wax maam ji ne ma waru la ko woon wax ndax xam naa ne yëguloo ko muy diiree ko ak tànk bi di duggaat ci kër gi chaque jour te munoon nañ ne mook ñii ñoo àndoon waaye bu dul loolu de aw ma leneen lu may fàttali ko ci Ousmane Sarr diiru 37 wala 38 ans aw ma leneen lu may fàttali ko ci Ousmane Sarr lu ñaaw yaay yaay rek yaay yaay rekk liggéeyi wàcc dugg na sangu solu dem na ci jabaram walla si ay moromam ñëpp la respecté doonoon yaakaar yaayam waaye sant daal soxna si doy na. kañ nga ko mujjee gis. Ah, kañ démb. démb sa matin ay 11h ah. waaw démb rek gis naa wax ma xay tàllal loxo di ko tooñ. ndax démb rek. da doon jéem a sauver femme bi quoi. da cay yam daal da cay yam di sauver femme bi. dëgg la dafa doon sauver femme bi mais daf si jot a yam waaw ah, loolu la yàlla dogal moom. mi ngi mi ngi levée du corps bi mhm. mm, kon donc yoon euh, bu ñu la déggee nga wax moom mbagg bi moom moo dam mais bi ñu ko yóbbee est-ce que peut-être gisoon ni bu ñu gaawoon ci sauvetage beeg yooyu mën na see mën na see jaaree mucc est gisoon tamit si côté hôpital dafa xaw yéex. côté hôpital xaw na yéex ñun dunduñu loolu ñun ñun ñun dañu di ay murit ñun dañuy dañu am yërmande ci suñu grand yi lañ ko tàmmee. dañuy toog di ñu wax àdduna dañuy wax loo xamante ne même buñ ko gisul tey suba dañ koy gis laay walaay talaay ndax ñoom ay mag yi am respect seen i jarbaat seen i rakkalañ. donc yow taxawaay bi xaw na des daal ci côté hôpital bu ñu teeloon a euh, premier soins yi bu gaawoon xëy na mën na mucc. waaw dëgg la moom hôpital moom xaw naa yéex kay bu baax sax CTO lañ ko yóbbuwoon ba sama grand yi ñooy commencé di aalu affaire yooyu noonu ba gars yi kii kër kër. ay sama grand Baye Mbaye ay Xaadim ay Pamoussa ñooñu dañuy daw ñëw bëgg a tekki ceinture am affaire yooyu noonu di ko dimbali ko ndax bañ ko nee yëngala sa tànk mi ngi yëngal tànk yeex yooyu noonu affaire yooyu waaw mi normal mais ba mu demee ba si guddi gi xam naa lu mu doon góor yàlla rek doon jàmbaar moo ko andi ba fii tey moo ko andi ba ci guddi gi mais bu doon keneen la tey waxatuñ ko dafa di jàmbaar rek. li ñu mën a wax ci moom daal mooy baax na yaru na. dal na am na sutura am na teraanga am na teggin yërëm na yaayam bëggoon na yaayam bëgg ay rakkam kenn musu koo àtte ak ay rakkam kenn musu ko àtte ak yaayam kenn mësu ko àtte ay ndijaayam ak i umpaañam ba ci mbedd mi mbedd mi kenn xamalu ko dara kenn xamalu ko dara dara dara dara kenn mësu ko fi àtte ba mu juddoo nag ba léegi ba mu juddoo ba léegi tey la ñuy doog am na metti bi mu dëddoo nii mais mësu démb xale yu góor yi xale yu góor yi ñoo xam ne bokkuñook ñoom dara fi lañ doon bërëgu naan tey dañuy dañuy dañuy dee ànd ak moom wallaahi azim dañuy dee ànd ak saar saar duñu fi bàyyi te dëkkuñu fi bokkuñook moom dara mais comportement bi mu nekkee ak ñoom moo tax ñu bëggoon dem ànd ak saar mais nag nañ ko muñ loo yàlla rek nañ ko muñ loo yàlla yàlla na ko yàlla yërëm yàlla na ko yàlla xaar mais amuñu dara dara lu ñu metti ci moom teel la ñu doog am lu ñu metti ci moom musuñu koo am musuñu koo am wallaahi azim mësuñu koo am ñu koy doog am tey démb xale bi bi mu ñëwee nan man maam man gëw ma ne lii am na Ousmane nan noppaliku na ma ne ko yow looy wax ni mu ne ma Ousmane noppaliku na ñun mu ni ma ne ko yàlla yàlla moo ñëw ak ay mbiram dee nag dee goo xamee ne yàlla suñu borom bi moom la soxla ndax te jixaat la deme di dimbali nit ba yàlla suñu borom bi jël ko kon dañ koy ñaanal suñu borom fa mu jëm yal na ko gënal fa mu jóge si barki Seydina Mohamed njaboot gi mu fi bàyyi yal na ko suñu borom bi teg loxo yàlla nag mooy def li gën rekk ndaxte yàlla ne woon ne moom fa mu toogoon noonu ñu bëri ñu nga fa woon waaye moom moo rocceeku dem dem dellu si demaat muy dee kon nag kenn mënul du wax dara dañ koy sante suñu borom bi te xam ne yàlla mooy def li gën. Ousmane bi mu bi may dégg décès bi il faisait vingt parce que man lañ ma wax dañ maa nëbb nëbb gi mooy dama woo soxnaam téléphone maam Manaar ma ne ko maam Manaar Ousmane mu ne ma mi ngi nii ñu ngi génn nii hôpital ma ne ah, alhamdulilah man loxo bu damm laa jàppoon ndaxte xam na ni ma mel ak Ousmane. moo tax nangu ma woon ni wax ni Ousmane génn na àdduna par la suite laa ànd ak benn booy mu ne ma am na keneen ku dee ma ne ko kan mu génnee statut bi fi ma toog muy usmaan Sarr ma toog affaire bi def ma équation parce que mënu ma wax ak Ousmane démb ñu waxtaan maak moom ndaxte mi ngi ma doon tàggu lii yàlla rek ko ko def na ma émotion daal. mais amaana tamit bu bu docteur yi teeloon euh, di teeloon ko dimbali amaana mën na mucc tamit. loolu tamit euh, parce que loolu mooy problème bi ndax Sénégal temps yi Sénégal liggéeyatuñu liggéeyuñu sunu benn mbokk taal bi li ma si autoroute bi def na choc depuis 9h ñu teg ko ba 17h ambulance ñëwul tey ambulance tey avant ñu leen di woo sam benn grand moo daw ba foofu jëli leen loolu du yoon. jël leen ba foofu ñuy doog mën a ñëw tey bu yàlla defoon ñu ñëw bu yàgg xëy na loolu yëpp mënoon nañ fa bañ a yegg. fi mu amee ak Abane Ndao c'est tout près pas 100 mètres. Euh, boobu jot naa dal xale yi ba pare dalagul mag ñi mag ñi ñoo doon bëgg a ñëw sauver xale yi ba xale yi génnee ñoom dañoo jaaxle te ne waa mais doomu diw affaire yooyu noonu rek daw comprendre te ñoo ba lañ yóbbee Abane ndaw ñu direct demee urgence ñu xool leen affaire yooyu noonu dugal leen su guddi gi ma ñëw ñu ne xale yi dañoo gaañu ma ne non xale yi ñu ngi dund dem naa bu hôpital fekk leen ku si ne sa yaay jox la téléphone ngay foo comprendre ñu nekk xale yu ndaw lañ ay ñaata âge à peu près. ay deux ans trois ans ay xale yu ndaw lañ xamuñu dara waaw. waaye bu dul loolu de aw leneen lu may fàttaliku ci Ousmane Sarr diiru 37 ans wala 38 ans. aw ma leneen lu may fàttaliku ci Ousmane saar lu ñaaw yaay yaay rek yaay yaay rek liggéeyi wàcc dugg na sangu solu dem na si jabaram wala si ay moromam ñëpp la respecté doonoon yaakaar yaay waaye sant daal soxna si doy na